lu ëpp ñett ay bés ñu ngi fii ci kër Serigne Touba Cheikhul Khadim kuréel li junnatul liman nazamahu di dalal ay mbokki taalibe fasantikoo ci ay mbooloo ay association ay daayira ba ci sax ay entreprise ku ne di feesal sa yéene ngir tàbbal loxoom ci liggéeyub Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bi mbokki taalibe yooyu di bàyyi ko ci réew mi bu bitim réew ñi nga xam ne ni tey ji ñoom lañ dalal ci dibeer gi mooy banqaasu Touba ca kanam ba fare ca Côte d'Ivoire ñoom nag indi nañ leen bu takku ngir tàmbaleeku ci liggéey bi. tey nag ñu ñëw ci turu suñu jëwriñ sëñ Magoumba Thiam ak mboolem taalibe Serigne Touba yi nga xam ne nekk nañ ci Côte yëpp ci ci kanam ngir indi suñu tàmbali ci liggéey bi nga xamante ne bii moom la sëñ Mountakha fas yéene liggéeyal Touba ci ndox mi nga xamante ne bi sonal na waa Touba. ñu ko yëgee it mënatuñoo toog moo tax ñu ne nañ tàmbali tàmbali boo xam ne si dañoo bëgg taalibe yi nekk ci Côte d'Ivoire ñëpp seen ne gars yi tàmbali nañu kenn ku ne fas yéene ci mottali sa yéene dugal sew ñaq lii nag ab tàmbali la rek dañoo mënatoo toog moo tax ñu ànd ñëw ci turu Touba ca kanam suñu Xaadim Gassama ak mboolem taalibe yëpp. waa juróom-ñaar fukki junni lañ tàmbalee fas yéene wu ñu yem foofu nag ab tàmbali la rek ngir mu doon ab soññee ci bépp taalibe boo xam ne gis nga émission vidéo yi nga xam ne def nañ ko ci fi ñu ko war a defee muy fii ji kër Serigne Touba gi nekk ci jumaa ji di ci woo ñëpp itam di ñaan itam yàlla na doon ab barke ci ñëpp ba kenn ku ne lam tiim yàlla def ca barke bañ mën cee liggéey lu kawe si njoot ci barke Seexul Xaadim Serigne Youssou Diop bokk ci commité de pilotage ni man na Nazamaho waaye di coordinateur bi yëkkati ay kàddu di leen jaajëfal bu baax a baax ci jëf ju am solo jilee loolu nag mooy wane na yéen da ngeen di euh, bu ko mbokki taalibe yi gisee ku mu nga toog di nga jóg bu fekkoon nga jóg di doxit di nga daw bu fekkoon nga doxit eh, nga dawit di nga di nga gën a waaxu te loolu rek moo am solo ndax sëñ Tuubaa loo def ci moom mu gàttandu la ndax sëñ Tuubaa amul jàmbaar sëñ Tuubaa da ngay am pas-pas rek waaye ak gàttandoom ak ndimbalam ak tawfeexam lu nu am moo nu moo nu ko fàggul waaw di sant bu baax ci tuuru si Abdou Lahad Ka bi jiite commune bi ci tuuru tamit sëñ Habibou bi jiite Touba ca kanam kon man maa ngi wax ci seen tur waaye di suturu tamit Cheikh Mamadou Mountakha mi ñu waxoon nañu eh, yéen ñett ngeen waaye maa leen ñeenteel ñeenteel googu kon taalibe bu yaakaar sëñ Tuubaa dugg na ci biir eh, la sëñ saali waxoon ci ci addiya yal na leen ci fekk te ngeen fasaale ñu ci bu baax daan na ne addiya njëriñam du lu ñu mën a lim waaye am na ci ñett yu sëñ Tuubaa daan tudd mooy fekk fu dara nekkul mu def fa dara fekk fu lu néew nekkoon mu baril ko fekk fu lu bari nekkoon mu barkeel ko yal na leen fekk ci lii ci barke Cheikhul Khadim kon mën nañu wax ne beneen jëf a ngi nii juy firndeel jaayante gi nga xam ne ni saa su nekk mbokki taalibe yi ñu ngi wéy di ko jaayante ngir nag li cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bëgg te jiitu ci muy dimbali ak xettali mbooleem ñi nga xam ne nii dañoo loru ci mbënn mi ñu mën koo daal di amal ci anam yu mucc ayib wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan